jërë ngeen jëf mbokk internetu Sénégal set ñi ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen euh, sant bu baax ci ànd ak ngeen xamante ni saa su ne koy ànd ak Sénégal 7 ci actualité ak lépp loo xamante ni ñeel na réew mi lépp loo xamante ni bëgg ngeen ko xam ci biir réew mi tey nag nu ñëw seet si benn ndaanaan sénégalais yëpp xam nañ ko yéen a ko gën a xam seen soppe seen waay la xam ngeen ko ci wàllu comédie waaye xam ngeen ko ci koo xamante ni saa su ne day jéem di indi lu neex ci biir xolu sénégalais yi ñëpp di reetaan di kaf di ree muy Pawlish Mbaye tey moom la Sénégal 7 waxtaan ak moom moom ci loo xamante ci réew mi la actualité la war na ci àddu wax ci li nga xamante ni moom la ci xalaat Pawlish ñu ngi lay di la bàyyi nga nuyoo mbokk internet yi. maa lay fay bu baax a baax ah, di nuyu Sénégalais yëpp tey nag soo gisee ma indi la fii tey indi ma la sama kër. mais dañuy dugg ci actualité nga wax ci actualité waaw déglu ma rek ma ñëw Pawlish lii nii mën tawee Socrate parce que dëkk bépp ay tiyaan lañ xaaral ñu ñu offensé lii di di nga ci ñëw di nga ci ñëw ci kanam ndax am na fu ma dama am fu ma bëgg nga dugg fi man a geew ci wàllu woowu dafa am fu ma bëgg nga dugg ci fi waa ci jeex nag may déglu Papis euh, Paulis li lu bëgg mooy nga wax ci actualité muy li nga ki nga xamante ni mooy liw Faramareen euh, dégg nga li nga xamante ni moo ko dal muy gars yi nga xamante ni dañu ko jël kidnappé ko daal di daal di ko dóor ba porte plante am ci ba nu ba nu ciy tudd di Diop ñu ngi ciy tudd ay Matar Diop Subatel nee na ki nga xamante ne mooy délégué Amar moom moo ko wax ni ko moom moo ko wax moom na moo mu saaga Wally yooyu yëpp am na fi quoi léegi nag gis nga li ci am mooy tey ña nga xamante ni dañ leen si doon tudd dañ leen defeere yóbbu leen ci kaso bi muy délégué dafa jege Wally Seck muy Idali jàppoon nañ dafa jege Wally Seck ban jàngat ngay am ci loolu nga xamante ni am na te mu dal ci wetu côté Wally yi. Ah, waaw parce que man man nag Sénégal li tax man ma gën a nekk ci dëkk bi xew gën see yàgg lu passé dama koy romb lu passé passé na ci man lu ma ci offensé bu baax. loolu passé si passé na. démb gis nga waa suba teel def nañ ci conférence de presse di ci wax lu demee noonu quoi. ah ok seetlu ma sax parce man du ma ne suivre en fait xam man. sa bopp rek laay suivre ci àdduna du ma suivre keneen. tey lan ngay wax ñi nga xamante ni dañu jege Wally di waneen dañ ko bëgg mais di dugg ci ñàkk fayda yoo xamante ni dugg Wally Seck ne xam na ko ci ni mu calmé ni mu yemee ci boppam mais tey imaginel délégué Amar bu demee ba nga xamante ni mi ngi jege Wally dem di dugg ci ay affaire yu ñàkk fayda naan ko yaa ko kidnappé yaa ko dóor xam nga. boobu da ngaa gis mu ànd da ngaa mës a gis mu ànd ak délégué Amar. waaw ah. gis naa ko man ak Waly. la euh, gis naa ko avant tabaski man ak Waly Waly taxaw ci kanamam. fan la taxaw ci daralu Waly bi nga xamante ne moo ah, nekkoon. noor wala ànd ànd ak taxaw ànd ñoom ñaar taxaw. dugg ci oto dem dugg ci oto kon ànd ñu. ànd ñu ànd mooy nga ki kon ni nga ànd ak ñi dugg ci oto ànd. dëgg koy nekkal la. koy ànd ak moom di ko wax say diis fan sa dafa am ay fans sa lañ ànd ak Waly yombut ànd dafa jafe lool. ñu gis ma riirandoo ñu naan ànd ak waale déedéet ànd ak mooy nga xamal ko léppam dugg këram dugg di waxtaan ak lu mu wax waxtu kee bu ñu rombee mu xam sa tur loolu ànd ànd mooy boo xam ne day xam ne lu la doo ko wax lu loo doo ko def loolay ànd te ànd ak waale dëgg da ngay diñ te yàlla da lay suturaal nga xew da diñ comme ni nga ko doonee waaw que lii ànd ànd ak waale mën tawee su lii tey gis nga waa suba teel ci ni nga xamante ni ñi ko doon tatagal démb ki nga xamante ni mooy Mandiaye Seck ak Bambali Seck ci ñëw yi nga xamante ne ñëw nañ ko suba teel bëgg ak Bambali doomu ma Penda ak doomu Ousmane sekk ñoo ñëw suba teel nekk léegi dañu ñëw suba teel di job ak ki nga xamante ne mooy Matar suba teel. je ne connais pas. wala xamoo Mandiaye. non day football. Mandiaye Seck Mandiaye doomu ma Penda. Bambaali doomu Ousmane Seck je pense. dañuy karaté wala dañuy judoka. dañuy way. pardon quelle langue. dañuy way comme wolof. quelle musique en fait. musique sénégalaise. Oh ne connais même pas wala. xamoo ñooñu. non je ne connais dañuy ay ay ay yolaas non pardon arrêtez de rire pardon c'est gis nga Pawlish nan waxtaan quoi. nan waxtaan parce que ñooñu bu fekkente ni seen papa ak Wally papa yi Wally Seck ñoo bokk nu dem ba nga xamante ni jóge nañu ci euh, musique faramaren. li ngay wax je ne connais même pas. pardon c'est comment non. démb suba teel Matar Diop mi ngi leen doon. attends ma ñëw dama la bëgg wax. démb suba teel ñoom doonu def benn conférence de presse li ñu doon def mooy ñu ngi doon accueillir ñooñu nga xamante ni sekk la sant di ay faramaareen comme Wally nu ñëw seen label donc loolu neex leen. non man Seck kenn laa xam Wally laa ci xam. ñu sant Seck. si si ba walla ak Aline Seck ak Mohamed ak Bintu Aïcha ak Babacar ak Mohamed ñooñu laa xam ci ñu sant Seck en fait. li ma la laaj nii bu fekkente ni lu am la lan ngay wax ñooñu bu fekkee def na nu loolu ñoom ma Ndiaye. mais ñun dañuy rythme bi wala dañuy basket c'est c'est comment tu c'est c'est comment tu mon ami dañuy basket wala dañuy rythme bi allez vas-y arrêtez feri wala. mais mais Pawlish dama euh, <laughs> la comme li comme li Waly di way dañuy way. rek la nu ah, ne je ne connais de ay basketteurs lañ ay zikatu film ay lan lañ ñoom. léegi ci commenté non répété li may répété li may répété mooy <laughs> Mandiaye ak Bambali. ah ok dañuy football wala dañuy rugby wala dañuy ay basketteurs lañu wala ay judoka lañu. léegi xoolal Pawlish ba mu bëggulee tontu nu avancé ni avancé mooy <laughs> Pawlish léegi wuy ma euh, Matar Diop Subatel nee na borom Subatel. nee na tamu yor Sidi Diop nee na may na Wally bunt pour bu fekkente ne bëgg na ñëw Diop ak ak ak ak Sidi mu ñëw Diop ak Sidi Diop moom Matar. mais je ne connais même walla je connais même pas.

lu euh, mu tudd Nabou Dash Nabou Dash. Ah, temps yaa ngi gis yi nga xamante ne mi ngi koy def ci réseaux sociaux yi gis nga ci jamono yi moom ak xaw ma kan euh, rangu li waxante ci internet bi noo ko noo ko bu ñu neexee ah. kii sama xarit la kii sama xarit la ku ci wax lu ñaaw boppam la wax parce que ñoom ñaar ñëpp dëkk il neex bu ñu war a xuloo dañuy xuloo mais après euh, moom sama yoon parce que ñaar waxi jigéen moom du ma ci dugg parce que góor laa du dëgg waxi góor dama ciy dugg boo waxee jigéen moom. sabotage loo ko jàppee. gars yi nit mënoo dof am teraanga. mënoo def xew mënoo def am teranga. déedéet da nga koy sànni ci mbedd wala nga taal ko wala nga wala wala nga jaay ko teranga boo xam ne mi ngi di xool li muy sol xam li war a sol gisoo mu wax ba tudd ko. loolu junj mën na rek xam nga da bëgg koy wax sexe lu sexe góor dañuy ñëw parce que góor moo toll foofu ay xelu muus la ñuy yor loo wax lu seen xel da ciy ne yow sa xel nekk ci li wax noonu. waaw ah, kon yow doo góor kon yow leneen nga am fat. yaa ngi may yaa ngi may offensé de doo góor. sa xel nekk ci bu waxee loolu sa sa xol du sedd ci loolu. dégguma ko quoi dama dégg ne wax na ko. Ah, kon da ngay bu ma ko seetaanoon sama xel ne ci mais dama ko dégg ni daf ko wax. da ngay bàyyi ba dégg ko sama xel soog cee wax li ñu avancé ci ñooñu parce que ay jigéen lañ allez vas-y répète. donc bi mooy Pawlish tey boo amoon benn conseil boo xamante ni ci jamono ji di nga ko conseillé Wally Seck jege bi nga ko jege nga def ko muy sa papa lan nga koy wax ci dina mu jëlaat matu matu matukaayam ci ñi nga xamante ni ci wetam la ñu nekk ak lépp. Wally déjà conseil na boppam conseil boppam bu ñu tawee su ma xam ni war a def xam ni war a doon kenn du ko dugal ci yu ñàkk fayda loolu conseil mu tawee su loolu Wally dëkk bi rek mën na conseil ñoom ñëpp parce que du dëgg kuy conseiller ay kilifa. kii waxtaan ay kilifa kon xale mënu ko conseil déjà parce que xam na li war a def lépp xam na li ne war a ne xam ne war a avancé xam na lépp li italien tuddee etu say furbo io no sono scemo dafa intelligente ci turu xam na lépp su ne capito tutto lu waaye xa def xam na ko lu waaye def xam na ko parce que way xel la te xel a koy def te yàlla dafa def ne mën naa way te boo mën a way am nga xel te xel a way lu ak football kat te daa mën a football football kon moom ñu koy conseil parce que déjà moom conseil na boppam yéen kay laaw la dimbali ngeen conseil mooy lan xam nga yéen ay da ngeen a xaw a saytaane trop waaw ñoom dañuy waxtaan modérel sa langage yaa invité modérel quoi da nga may may bàyyi ma déborder wax li ma néew déborder kon damay bàyyi émission bi parce que yaa am invité ah. euh, euh, gis nga ko tey geste bi mu defaat dem yóbbu Idali yóbbu délégué moomu ci Matar pour jégalu ci li nga xamante ne jaar na. nit moom bu baaxee lu baax lay def munoo def lu baax di am lu bon lu baax lay def c'est-à-dire parce que jubóole moom nit am na ci yool wu rëy rëy du dëgg li mu def nii nañ nit ñi sant yàlla parce que lu baax la def waaw ku baax la daal xaas. wute naa waaw wute nag sëriñ su bëri nag moom wute nag sëriñ su bëree bëri sëriñ du kaf sëriñ du bëgg ay kaf sëriñ du bëgg ay xàkkataay sëriñ du bëgg affaire manqué ku baax la ku xam boppam la kan la. Diop xaas ku am fulla la ku xam boppam la ku xam mooy kan la te sëriñ ba am personnalité la xaas mu ngi sëñ Assane Fall bi nga xam ne Fall bu yàlla faale la taalibe Cheikh Ibrahima normal la lu mu wax dëgg la lu waaj wax dëgg la lu mu xalaat sax dëgg la que baax na sénégalais ñëw ci moom kii ku baax waaw ku baax la ku am la mooy sa mujj kàddu sangu piscine nage sa mujjeelu koy defee fu ma saf mi ngi noonu Pawlish Mbaye la yéen a ko gën a xam miin ngeen ay caprice miin ngeen li nga xamante ne saa su ne bu toogee ci plateau loolu lay def il faut nga ànd ceeg moom parce que noonu la mel quoi noonu la ko yàlla binde donc mbokk yi ñu ngi leen di jox jaa euh, dig daje ba beneen yoon ci seen beneen numéro incha allah.